fukki waxtu ak ben fi ci quai de pêche bu Tëngéej ñu sék waxtaan ak ñi di yëngu ci walum nap gi mu melni mbass mi di coronavirus am na bu baaxa baax ci seen liggéey. sonal lañu trop ah ni ñu jappé jappé ko sa ñeneen ñi wallahi mo fim toll ni bu ñu sa ñu ne mol mool yi ñoo gën a ah, parce que xam nga bo xolé lepp lu am ci aduna ñi ñi joxe ndimbal mool yi ñoo ci gëna dé parce que du leen dimbali. da nga dem géej terre xam nga bo ñëwé japp jeun yoy ma wax lu ay xam nga kibaaro jariñ xam jën yooyu da nga daan jàpp mëree di nga xëccoo léegi nag da teer da mujjee jaay marché noir parce doo gis ku ko jënd kilo jën bu daan jar 6000 dem ba mool bi léegi yaa ngi koy jaayee ay ay 1500 yi 2000 xam nga wala sax doo gis ku ko jënd xam nga loolu loolu loolu crise crise la si mool quoi loolu crise crise la si géej gi am na njeexital bu bëree bëri ndax boo doon am dara di natt di am looy yóbbu sa kër sa bu njëkk moom macha allah daan nañu am ba yóbbu suñu kër yàq na lu bëri sax ndax clients yi niñ doon ñëwee par rapport ak léegi nii ñëweetuñ ko boo xoolee sunu liggéey ren dafa xaw a dafa dafa sooxe lool lool liggéey bi dafa taxaw parce que boo xoolee jën yi ñu yëpp dematul woon instant loolu lambal na jën bi yëpp parce que jën eh, boo jëndee jën fi mu toll nii pour jaay ko sax problème daanaka daal mën nañ ne fi toll nii ñun ñëpp am problème vraiment des fois problème dépense da dañ koy am parce que liggéey bi deugerna tuba bi ñu li nga xam ñu daan ñew nga leen di jaay jeun manam ñi jënd prix bu baax nga ci am dara ñoo ñop kenn gennatu ci ko wax mu ne la corona bi motax tax mënatuma genn manam bo daan jaay fukk instant yi ñaar ngay jaay njeexital li ci am moom macha allah sant yàlla buñ dundee di wax sax sante yalla la waye suñu njeexital suñu liggéey lepp luñ doon liggéey dafa wàññeeku parce que da ngay liggéey bagage sax doo gis ku ko jënd si parce que nit ñi ñemewuñoo génn génn bu bari loolu am na impact bu ñu defal deuxièmement liñ daan am si produit amatuñ ko loolu yëpp am na ay problème ak heure yi ñuy liggéey ak heure yi ñuy wàcc te bu njëkk ba amuñu woon heure liggéey amuñu woon heure wàcc saa yi ñu neexee liggéey léegi ñu dañuy am heure yu ñuy liggéey ak bés yoo xam ne sax dañ ñu duñ ko liggéey te loolu yëpp feebar bi moo ko indi ndax loolu yëpp kenn mësuñu ko woon a def ñu gëm ne nag yàlla moo ko dogal lu yàlla dogal moom mënuñ si dara ñu ñaan yàlla yàlla jëlee ko fi waaye daal ñun am suñu côté ñun ñun pêche am nañ si impact bu bëri parce que bi muy ñëw daa fekk ñu dugg ci ay banque parce que liggéey lañu ñuy def te kuy liggéey il faut nga liggéey ak banques yi banques yi nag ñoo ñu war a comprendre xam ne lii lu am problème la te du ñun dañ daan liggéey ak ñoom te amuñu woon benn problème kon bu yàlla dogalee lii am état moo ñuy dimbali wax banque yi ñun ba ñu ñoo fay dara de lépp lu ñu leb incha allah dañ koy fay waaye ndànk-ndànk lañ ko mën a def parce que problème yi moo xaw a moo xaw a dal ñu kaw. moo ne sax njiitu réew mi jëloon na lu toll ci junney milliards ci sunu koppar muy ab ndimbal jagleloon ko ñi loru ci mbas mii di coronavirus. li ma wóoraal bu wóor mooy mooli Tëngéej moom ndeppe deux gi ndeppe gi ma ne ndeppe gi ma ne man xam naa ne jotuñu ndimbal. loolu moom leer na ma moom am na nag ay digg yu ñu dikk xam nga gis naa fi bërka démb rek ay nit ñëw fi yor ay yor ay këyit mais dañu yàgg dañu yàgg a naxe noonu ñëw fi yor ay këyit laaj ñu kii nii wax a wax a wax dem ñu toog di dunda yaakaar forage daal di xëddal duñ gis dara mool moo mën a xëy suba di dugal ay milliards ci keesu Sénégal heure bi dañ war a subventionné mësunu gaal yi dañ ko war a subventionné maanaam bu dee jar un million ñu wàññi ko ba ba ba cinq cent mille ndax mool comme corona bi jàppandi leen ñu mën a am ay machine bi mu toll nii mool yi gerwaale yëpp seen machine paan xam moo tax fi mu toll nii corona bi ñu nekk nii jàpp na mool yi ba gerwaale gi mool yi yëpp ñooy machine paan na ña mu ña ngi leen gaare amuñu luñ ko luñ ko defaree amuñu luñ ko defaree waaw moo tax état daa war a jàppale mool yi. dimbal lii ñuy wax ni ñu ngi koy dégg rek na laajoon nañ fa ay kayit ba ñu déposé kayit yooyu mais affaire bi génnagul daal te ñoo ngi ñaan Macky Sall mu mu gaaw ci ndax ñu mun koo jot ku nekk mën a gis sa bopp sa liggéey parce que balaa corona yoroon nañ xaas bay liggéey di wël wëlbateeg yooyu mais corona bi mu amee nii li nga yore woon yëpp da nga koy dépensoo gisat gisuñu suñu bopp daal ci corona bi ñu ngi ñaan yàlla daal Macky Sall ak ministre de la femme mu jàppale ñu si dimbale ñu si budget boobu parce que soxla nañ ko torop dimbal yi nga xam si nii ne moom lañ doon yónnee fii man bindoon naa lis man lañ binduloo woon liste bi jëloon naa liste bi yëpp mais booba laa ci gëj xam dara ba léegi ndimbal daal man gisuma ko mu dugg ci biir kee bi à part plus tard quin bi boo fi wutoon ay masque jox ñu ko ñi di ko séddale fii mais à loolu beneen ndimbal gisuma ko fii ci quai de pêche bu Tëngéej xëy na dafa am benn côté bu mu jëm mais ñun moom egsiwul ci ñun waaw ñun nag ñu ngi toog di xaar ba léegi xadde wunu de man chaque jour dama naan xëy na daa egseegul mais dana ñëw woon nañ ñu boole nañ ñu si waaye xam nga euh, lu ñëpp bokk lay faj soxla si ñëpp du yomba ngay ñam rek te gor du ne ñamuma da nga nan suuruma waye ñam nañ li ñu ñami tamit dafa am ay côté yu mëna am ak côté yo xam am parce que li bëri wul ñi ñaanat leneen nak pour ñi nga xamne amna am leneen lu ñu tamit ay dossier mais dafa am leneen luy ñewat ndax lu ñëw dañ ñu yóbbu fi bindañu yóbbuñu buy gën tamit dañ ñu si boole lolu mom, ñu ngi sante yalla ci côté bobu ci fatali febar bi di coronavirus mu ngi gané ci sunu rew ñaari fan ci weeru mars ci at mi ñu nekk ci wàññi fii ci sunu réew 12 850 doomu aadama am nañ doomu jàngoro ji 266 ñàkk ci seen bakket mu nekk loo xam ni mbas mii di coronavirus am na njeexital bu baax a baax ci dundunu askan wi